ci njabootu Ibrahima yàlla wax na ak Ibrahima ne Ibrahima dinaa def ci yow xeet bu yaa te dinaa la barkel teg ci xeetu àddina yépp ci yow lañuy barkelewoo wante Ibrahima dafa nekkoon góor boo xamante ne amuloon doom yàlla diggoon na ko ab doom doom bi ko diggoon nag Abraham amoon na beneen doom muy ismaila ak isaaxa noonu la yàlla mottalee li mu digoon abraham abraham am na ñaari doom te keneen ku doom gi mooy ismaila mooy baayu naar yi te isaaxa mooy baayu juif yi ni la yàlla continuer di jëf ay jëfam